numéro 2 ak ki nga xamante mooy Balla Gaye numéro 2 mais boo xoolee ci kaawu Modou Lo dañ ne combat bi bëgguñu ko Modou Lo du bëreewaat ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye nag mujjee euh, may ki nga xamante ni mooy revanche ki nga xamante mooy tafaati mais combat boobu dafa commencé bëri biir bi ndax boo xoolee tafaatin nee na ko daanoon nga ma mais bi nga may daal peut-être na dama nekkoon xale wala peut-être bi moo fi kiiwul woon mais gis nañ combat boobu bëri na coow bëri na tension te combat bi tamit Balla Gaye numéro 2 dem na tamit moom uti liggéeyaat comme si dañuy wax naan Balla Gaye mënatul daan bëri yaram bi baaxatul comme si que moom day commencé sa xaw a comme ni ñu nit ñi di wax day mujjee nekk dëgg mais boo xoolee combat la boo xamante ni daal combat bu neex la tey boo doon analyser combat boobu Balla Gaye numéro 2 Tapha lan nga ñu. waaw comme ni nga wax rek comme que li nga wax sànq Modou Lo Balla Gaye bëri nañ deux fois boo seetloo làmb ji comme tey ji ay kenn ku ne dafa am ay adversaire potentiel yoo xamante ni ay nit di bëri ñett yoon jëratu ko. Mm-hmm. mooy kenn ku ne ki boo gisee kii daan kii ñaar kii daan kii ñaar ñoom seen combat dootu amu ci rythme. Mhm. comme buñ boole waatoon Balla Gaye Eumeu Sène rythme bu demee noonu wala ñu boolewaat euh, Modou Lo ak Balla Gaye wala keneen ak keneen ndax nañ bëriwaat nit ñi seetaan nañ ne seetaan nañ ne mm-hmm. kenn ku ne la yàlla dogal ci moom ñu combat yi mel ne euh, Balla Gaye Tapha Tine bi mooy mooy mooy ëpp rythme xool ndax ñoom ñaar bañ dajeeg léegi ëpp na dix ans wala mu ko mm-hmm. boobaa léegi kenn ku ne kii ne woon gone laa fii kii ne lii mënatul lii kii mënatul lii mm-hmm. te aussi dañuy mbëri ñoom ñoo may ndaxaay ndax ñoom mbëri yu ci bëree bëri làmb lañ jaakaar kon nag ku ci toog war a war a war a war a am combat di xaar naan kee laay xaar fekkee comme ni Tapha def mhm. noonu la kenn nga da bëri yow nga dem jëli beneen combat mhm. mhm. na ba gis na euh, bëriwul wala day noppal wala day jël conseil mu dem jëli boo xam ne am na ci yaakaar waaw mm. Balla a dikkee ci combat bi ndax boo xoolee dafa daanu contre Boy Niang numéro 2 Tapha daan Eumeu Sène yéen ñi nga xamante ni da ngeen di faral di seetlu dañuy woo dañuy faral di woo jotoo lañu mën ngeen bàyyi message whatsapp ci 76 349 24 99 képp ku ñu ci jot incha allah rabbi lépp lu aajo ci kàttan. waaw mbokk yi li ngeen di gis nii mooy xaatimu Souleymane bi nga xam ne dañ koy liggéey ci jaaru mu nekk uh, xaatim bu yéeme boo xamante ni jaar bu mu nekk borom lépp loo xamante ni da koy yóotu ci lu mën di doon ci wàllu àddunam saa borom dina ko ko yombalal bu baax a baax noonu. numéro bi 76 la 349 24 99 bii ci jaaro lañ koy liggéey comme jaar yi ngeen gis nii ci lañ koy liggéey mu bàyyi da daji dox ak wàllum kaaraange ki ubbeeku ak jàpp na mbir yu bëree bëri ci jaaro lay dem waaw. kay mi ngi noonu bu bëree moom ngeen gis nii mooy dem ci jaaro bi waaye jaaro bu mat am la boo xamante ni kenn ku ne war ngaa war a fexe am baax na lool de waaw incha allah rabbi. sëñ Njaañ tey loo ñu indil. waaw tey jii nag moom bayre lañ leen indil fan yi den ngeen gis ñëw yéen ci ay wàllum ubbeekoog ay kaaraange mais chaque jour day am na ñu indi tey nag ñu ngi indil bayra bayra nag ko waxee ñu ngi indil bayra amarum na xay su ku nekk xamoon na ko ci jamono njëkk yi wala gëstukat yi wala sama bokk seen si ñu bëree bëri xam nañu amarum na xay si amarum xay si nag ku yàlla mayoon la wàllum bayra surtout maanaam bayra jigéen te jamono jikko dafa bëri ñuy jàmmal lool naa ñu ay bayra jigéen nag wala nit ñu jubbuwul ne nag fuñ jublu nit ñi bàyyi leen fa ak yu bari bii nii moo leen di tàqale ak moom bii nii bayra bu yéeme la boo xam ne day dox ci bayra ak kaaraange ak muslaay surtout maa ñi xam ne dangay faral xam rek réew mi léegi dafa jax sax ñu bëri dañ lay wax naan la ay bayra jigéen laa bëgg ak wala bayra boo xam ne nit ñi dañ may soppoo li bëgg mais bii nii ku amul kaaraange sax waroo kaa jël bayra bii ndax bayra bu doy waar la boo xamante ni képp ko ku xam amarum na xay sa xamoon ko ku yàlla may na ci wàllum kàttan ak wàllum jigéen may na ko ci loo xamante ni niwaanu ñu ko mayoon ba nag moo nekk nii nii képp koo xamante ni tamit soxla nga ko mën nga ñëw woo ci 76 349 24 99 boo ñu jot nag noo ñu bàyyi message ci whatsapp bi incha allah rabbi jërëjëf. waaw salaamaaleykum tey moom ñu nuyu baax de siyaar di bëgg am lu ñu leeral ci sunguf ndax ñu bëree bëri bu ñu nee sunguf rek dañuy jàpp ne mbir la moo xamante ni day yëngu ci wàllum loolu te fekk na ku wax garab wax sunguf te gis na te maam wàllum sunguf yi nii. day dox ci ubbeeku comme yii nii bu dee lii sungufu nob la mbooleem li nga xam ne garab yi nga xam ne day dox ci wàllum nob dañ ko proposé moo nekk nii bu dee bii ci wàllu ubbeeku la mbooleem juróom-ñaari garab yi ubbeeku la yoo xamante ni ci loolu lay dox bu dee bii bayra la moom nag nga jël pour composé ko arxuraan ji mooy tax lépp lu ci nit def mu gaaw ndax fi doon sunguf lu mu gaaw gaaw boo ko bari arxuraan day gën a gaaw moo tax bu dee ci wàllum ah, kaaraange la mbooleem sunguf yi nga xam ne ci wàllum kaaraange lay dox rek moom lañ jël boole. moo ko loolu nag boo composé moo tax nit ki boo gisee ñaari ci bu ñu yàlla suturaale nit ñaar bu ñu jëflanteeg moom rek mu gaaw am résultat yi demee noonu ndax dañuy boole garab boole arxuraan te képp koo xam ne soxna mën nga ñëw ñëwoo ci 76 349 24 99 ci kàttanu yàlla bu ñu diggantee lépp loo xamante ne soxla yitte woon na ko dañ koo def ci kàttanu yàlla jërëjëf.